téeméeri xale yi ak juróom benn fukk ak ñaar ñu doon tàggal ci wàllam dawal oto fii ci diwaanu Bambey te 3FPT amaloon ko ci àllarba fanweeri fan ci weerab août 2023. tey dañoo tasante fii ci centre bi pour discuter pour remettre euh, permis de conduire euh, aux jeunes nga xam ne 3FPT formé na la euh, ñu toll ci 162 personnes. et de ce fait pendant trois mois quatre mois auto école bi ñuy wax ñëpp dikkal euh, formé na leen si sécurité routière compétence yëpp euh, am nañ ko mi compétence théorique comme compétence pratique c'est pour cette raison ñu tase fi tey pour quand même waxtaan ak ñoom avant ñu leen di jox euh, permis yi expliquer leen véritablement Euh, quels sont les pré les préventions quels les types de prévention yi nga xam ne war nañ ko mën a def si secteur bi daal. ñoom ñu le sax dañoo xaar ba jamonoy màggal gi nga xam ndawal day sooxe lool la fii ci diwaanu Sénégal ñu daal di leen di jox seeni lijaasa waaye nag ba pare soññu leen. màggal bi dafa nekk euh, moment bu nga xam ne dafa xaw a critique si mbirum euh, densité transport parce que nit ñi dañuy jógee si quatorze régions bi Sénégal yëpp pour rallier surtout ba et de ce fait souvent euh, accident yi day bëri te concentration bi si kaw télé bi day des. Euh, xale yi souvent duñ maîtriser volant bi surtout respect bi le code de la route wax loolu tax ñu xaar moment bi nga xam ne c'est moment propice pour lancer ce message pour que véritablement mu am une certaine prise de conscience de telle sorte que soo nekkee sa oto bi da nga mën a téye sa volant di nga mën a véritablement conduire calmement de manière disciplinée ba fëgg a ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo jotee ci permis yooyu am ci ak kontaante bu baax a baax waaye nag xamal nañ ñu ne jàng nañ fa code de la route. formation bi moom njariñ bi mu gën a am si ñun mooy euh, jànge nañ ci code de la route muy lu ñu war a respecté nag jàngee nañ ci code de la route parce que kenn ku si nekk tey boo gisee benn tableau di nga xam lan la signifié. boo gisee benn tere si tali bi aussi di nga xam lan la signifié kon loolu noonu formation bu ama am solo la te mënuñ ko woon. yeneen sax ay métiers mun nañ koo xaar ci 3FPT ñi nga xam ne tàggat ndaw ñi ñoo tax mu jóg. waaw du transport xam nga 3FPT lu muy yëngatu bëri na mbiru transport mu ngi si euh, côté agriculture transformation des fruits et légumes céréales ñoo ngi si euh, côté aussi. Euh, béykat automobile ñoo ngi si euh, ñoo ngi tamit si côté secteur tertiaire primaire ak secondaire donc ñu dañoo transversal daanaka foo xool si secteur économie bi 3FPT boo ngi fa mais bii dafa dafa fekk ne transport bi temps yi accident yi bëri na loolu moo tax ak cette fois ci ñu wax nañ ciblé vraiment secteur bi wàññi accident yi. góor ak jigéen mag ndaw ñoom ñëpp daal di jot seen i permis de conduire tax naka ñu mën a dugg ci dawalam oto waaye nag am ca ak njàngat moo xam ne mu baax lay doon ci code de la route